seen sitcom VIP sañse ak Baby Clio ñetti fan dong nga leer naññ Perfect Glow White Secret fin mu jigéen centre commercial El Hadj Modou ñoo leen di may seen sitcom VIP sañse Ini nii de toog ñu koy pare waa ñëw na suba la combat bi ba pare na sërët bi aku jàmbaar la de jàmbaar leen de xamal naa la ko moom bii mooy seen trente cinquième défaite <laughs> ya, mu leer yow mënoo di ma ci ay détails di ma quoi li ngay wax ni man xam ko xam naa day rek mais bul sonal sa bopp dinañ ko duma dinañ ko daan ci loo ci man borom 34 combat 34 défaites. 35 bi nag. ci laay daan bàyyi mbay ba daan ko fa dara nekkul daaro tey lay jeex njeex na ci man moo tax ma indi lii ku nekk am na ku nekk am na loo xam ne mooy sa cumukaay lii tamit cumukaay ci laay dóor bàyyi mbay ba mu tëdd ma teg ko ci yóbbu ko. <laughs> what. <laughs> mais yaa loolu. loolu lan la mën a nekkee ñoom ñaar ñu ngi war a bëre di adversaire ñu bëgg bokk benn parrain loolu lu gën Sénégal fii may si fi gan de ko seeda monti ya pron ko ditche mais nag lës la lu mbir la mbir la ci man may sa cam borom VIP xam la hmm. lu musul am Sénégal la ñaari mbir di bëre bokk benn parrain mën naa cee jaaree am ci bëss bu dootul fay moytul nag mu yóbbu la ardo wala dara di xew fii xoolal bàyyi ma moom lu ma ci teg parce que waaye yow foo xamee ardo sax da roppal waaye sa jipp bi nga nu pomp ni sa gàttaay bi dombal may sa laay si tax ana may sa may saa ngi si biir bu doon la bu doon naan ardo foo xamee ardo ma foo de ay roppal waaye yow sa kanam googu mel rokk sa kanam googu mel rokk nga pomp sax may yëg deuxième étage boo yëgee rek xoolal. xelal. saa waay ah bàyyi bàyyi. excellent. hey kay kàcc porte ko tête mais ñoom ñaar ñu war a bëree ñu war fa daje ci boutique bi mbaa duñ fi xeex yàq sama boutique bi indi fa ay ay ay ay dégâts. non mooy sax. yooyu mbëri comédien lañ. oui gis nga ko mu egsi nii sax. Bye. waaw mais léegi de. non aku dina teg seen bët nga ma wax loolu waaye di ma jooyloo waaye ah xajuma ci moom. waaye dafa mel pare nga sara bi. non pare fépp yónni naa samay mbokk ñu nga Joal ñii wa nga Casamance ñii wa nga. mari fara laa bu ci dama ko bëgg de garam. saa saa mel pare na ko pare rek loo xamante ne nag. wane kii jë de ah. bura kii jafe sa kii ta kii ah. bura sa kii sa ka ca bëgg de de. xajuma ci ay sànq. waaw kay kay kay kay kay kay taxawal ma. mais yow instant bi fu mel ni da nga mer quoi yow. non lépp jàmm damaa liggéey grand xool ma xoolal ci reception bi. dëgg lii xoolal reception bi. liggéey biir laa bëgg ñu nekk ci kaw dama leen a jëli defaral leer kon sax bu yàqu moom waruma la a xam waaye. yaa ma loolu na waaw ko dama ko bëgg parce que fi mu war a yóbbu moo sori. combat bi réer de sare bu yàqu dafa dafa tëdd. dama koy duma taal ko xajuma ci moom waaye gannaaw bu yàqu ma lay wax sare bu yàqu waaye. waaw ah, mais taxawal sare bu xanaa yow boo amee combat pare nekkul nit ki. mais di nga xaar sax jëlee fi dara dem am nu ma def ak yow. waaw man may sa càpp borom VIP. boo ma defee def xam nu ñuy def comme que dafa jàmp. mais dara bu la dara met da ngay génn ci biti nga taxaw xaar léegi dama lay boole lëz moom dafa yow. inna lillahi wa inna ay yàlla ay ku dee mbaa Fat Bousso deewul ay Fat Bousso Fat Bousso boo deewee dinaa la sant de nga bàyyi ma sama jëkkër ji may sa caam loolu su ma Fat ñaay naam lu fi indi corbillard bi bintu lii du corbillard de civière la corbillard ci dañuy teg néew bi Fatou Bousso Ken kenn deewul li meur bi moko fi indi xaw ma nu mu saret bu yàqu xoma nan nan mërub maysa bi rek moko fi indi legi sareet bu yàqu yal na de tas na sama yakar gep na sa lol dama fay indi bo wax jooju waxuma ko de sama waxu conférence bi lay wax. conférence waw dama organiser conférence ngir ñaanal sama jëkkeer ji may sa cham cham Babel Demba cham sama jëkkeer di nga xamne dama teral yirma ma ma ba legi machallah allah. te xam nga ne jamono ji nu nekk nii affaire yi métti na ci moom moo tax ma bëgg koo ñaanal. waaw conférence bi sax moom kan moo koy animé. Tafsir Abdourahmane Gueye. Tafsir. waaw moo koy def. ay yow man damaa bëgg Tafsir. Tafsir de bu ñëwee ay waroon naa fekk mu am xaalis. ah gis nga Tafsir bu ñëwee su fekkee mu am xaalis moom conférence bi King Fat laa ko yóbbu wala Radisson ñu def conférence bu rëy. eh man maay organiser sama conférence de du yow na leer nga nga bëgg yenu sama bés ma bintu am borom bés yi nga bëgg yenu sama bés man wayo sax xana xamoon ni tafsir dafa jafé kan moo la koy lijjantil bintu caam nga nan tafsir dafa jafé samat xaytu may sa am bobu waw momu koy lijjantil neena ma yow bintu togal dina la indi tafsir abdourahman te xam nga ne koku wolna

boo def fas jambar la quoi fas liñ koy lepp muy yendo daw te du jambat du metti lu boy, fas jambar la boy aduna boy dox ba yag sa dal dag non da ngay way di partout yaaraw panu malik ko sa lalu far mat rek sab silib teeñ boo mu ko la wokkal rek da ngay ŋaas-ŋaas walla nga jël kóob ah waaw ñu ngi ci kaw ma man de yow laay laaj sax noo koy pare fu nekk non boo xoolee sax état nga xam ne pare naa pour lépp grand xoolal sérieusement su ma nee dem trente cinq noo euh, non bàyyi combat caati la tekki sama ngemb. Ah, ah. sérieusement nag combat bi dama dama ko jël lu sérieux. ah waaw mais góorgóorlu de toute façon ñun ñu ngi sa ginnaaw di la jàppale. d'ailleurs léegi rek boo jógee ci kanam dama lay jox cent mille francs comme ça nga dem jox ko sa mara bi mu préparé la ah mais nag bëgguma ñëw ci stade bi di ñibbee gàcce de te prene ko déet cher. grand soo ma joxoon juróom damay daan combat bi dama ko jël en main dama ko téye. téye mhm. en main grand lenn laa lay ñaan grand lenn lenn su may bëri ji sama ko ñi da sama mère ko ñi dañuy jooy jooy yu metti te li ñuy xaw ma la damaa bëgg nga ñëw waxtaan ak ñoom ñu xam ne ne am nañ mbër sereet bu yàqu léegi jeex na sereet bu baax a fi ne nga ñëw wax waxtaan ak ñoom. mère dañuy jooy quoi problème boobu laa non mais yow loolu jarul woo ci débat bul sonal mère yi mère yi li ñuy jooy lenn képp la mooy sa défaite la ñuy anticiper. Ah. xam nañ ne boy dem bëri ci ñom daf leen leer na yow da ngay daaru motax ñuy joy ah bo loolu lay joy motax soy sooy ci yow soy bëri ci yaay mortal day joy joy metti te c'est mon soo yaay la mais loolu la léegi wax ji leen kepp la li lay tere daan leen kepp la du méré moy doxaan gu bari gi ngay bay munoo am ay xale yu jigéen di doxaan guddi di doxaan bëccëg munoo am 12 gel di lekk ci gerte yi mais da ngay gagné moom da nak waaw mais gannaaw bi lu mën ya? ya? gitu ya, kan? kan? iya, mi xool mën mi dama doon dama doon ay 60 guerre gannaaw xoolal man mi xoolal damay am 60 guerre di ci gerte gi teewul damay damay sama la hey the cruzamento xanaa ñun dëkkuñ ci dëkk bi yow nga am 34 combat 34 you know kañ nga daan ak kan nga mës a daan. non Dakar ko ndag nagu sun sun nagu dëkk ba wara fa kon yow ay mbapat nga ma yor quoi wa mais grand bëre du karaté grâce nak suba ba légui yaangi waxtu du mo ngaax ñeex affaire yoy nonu quoi dafa melni yow da nga am problème de mu démé non sama bob Ya yow grand nga atam pikin mau matang delire. di délirer sant ñaan ba ngay nekk fam lah, ñu boy ki fat bindu Fatou la grande dame la. boy moy def conférence bu mag jox ma ne ma Tafsir abdourahman gay la soxla pour mu waxtaan ko conférence bi. ganna lol dina wacc de. boy Tafsir abdourahman gay la lol non da lol day baram du wacc ah Tafsir abdourahman ma jóg dem sété ko boy non boy ne lim engagé ci programme dafa bëri dafa satiré quoi mënul mënul mënul gérer ki bi. boy sama sama sama. chat la. te bientôt conférence bëri na bëri na rek mbir yëpp ci ci ci Mbapat lañ débuté daan bay ñëw day liggéey c'est normal man damay wax sama combat fa tout cas ah mais il faut nga ñëw courant il faut nga ñëw. bon bëggoon naa ñëw vraiment mais malheureusement sama soxna. le jour ci ce jour bi dafa war organiser benn conférence. te il faut que ma ko xam nga rek man may sa càmm samay bagage loolu daal moo may teree ñëw mais kon sinon damay ñëw si rànd si. lan mooy jour ji gannaaw nga baal a teew si rànd si. non mais ah, non non boo ñëw il faut ñu ne sa téléphone ñu la ko defal laaj fa daayar ñu la ko defal di la ko di la ko envoyé sa tête sa portable jabar dama bëgg ngay xool lépp grand. taaxirlu leen tuuti. C'est comme VIP à mu mon ñëw après la page publicitaire sama teint jigéen ñu baax ñëpp di ko xëccoo White Secret sama femi yi taaral njaboot man esthéticienne la xam naa comme ñëpp que le respect est réciproque sa bii boo ko respecté wul du la respecté te sa bu la respecté wul doomu aadama yi duñ la mën a respecter yaa ngi am ay taches ay vergetures mélange bu nekk ngeen bëgg ko utiliser pour xees dem na sax ba léegi jigéen ñi dañuy piqûre pour am temps et pourtant am na solution buy respecter sa peau. ban solution. Baby Clear solution la buy respecter sa peau essayé ko ñetti fan dong nga leer nañ. Baby Clear gamme complète la am na Clear un bébé extra bi ci tache noire Amne sérum accélérateur huile à crème effaceur 500 premières femmes yi numéro 8 77 441 08 18 ñu may gratuitement. Avec la gamme éclaircissante Perfect Clou, ressentez une peau nette et sans imperfection. Avec la formule concentrée de collagène Perfect Glow, hydratez et renouvelez la beauté naturelle de votre peau. Avec le correcteur de taches noires Perfect Glow, uniformisez votre peau tout en éliminant les taches brunes et les imperfections. Riche en vitamines C, E et bêta-carotène. Des résultats brillants dès les 5 premiers jours. La gamme Perfect Glow Carotte de 10 dama bëgg ngay xool parce que sama première victoire non grand xoolal non xoolal non boo ñëwee combat bi nga xam ne sama première victoire nag mbër gaale ngi nii toog. ah bon doomu tukaar gi ngi nii toog. pare naa ci lépp. xoolal sama pare dama uti amee tukaar gépp sama ginnaaw utiit ñëwal grand wala nga yónnee loo xam ne day ñëw indi sa téléphone. grand bu xool sama état ni ma mel boo xoolee grand ma mel nga xam ne grand pare naa pare naa yaa tout ah grand. loolu tax ngay kii nii quoi. waaw mais yow ci banlieue bi nga dëkk bu ma seetaan banlieue bi xanaa am nay kàngam ak i ponkal dañoo civilu rek. xanaa nag doo ne ma mënoo fay lijjanti banlieue bi xanaa banlieue bi nag amul kàngam quand même ak ñu fi mel. non grand Samad nag soo waxul du xam yow xam nga ne maay banlieue bi. ah te bali bi lu ñor fa lañ njëkk tax bi ah. ah waaw. ndaanaan ñëpp fa lañ jóge ah dëgg-dëgg ñii ngay wax nii nii yëpp ñu leen gën a forox ñoo ne ci banlieue di toj tànte yi xoolal man buma ma man buma ma Iran ndaw baax bu ya ma amee oustaz pap an baxna kuma ci am ñom ña Iran sax mom jarul mu ñew ndax neena nee 6e 6e lay waxal ta foofa ña fay nek ëpp na élève 6e ay kàngam la ñu ma yow daal comme dañ la fay dag may fay boo ma fayee ah. ma indi la ko forox nu toll tojalal tante ba mokku lu mbax ñu forox tolu sax na nga boy sa lamé wé dakk taatu yam ah lo lo teug rek ci xanjal ah deglu rek bul jidal alal sama digënté yow bul xol xaalis yow gérer ma sama situation rek après ñu xol luñu def ma ak yow ah, mais grand dañ la fay dañ la fay nak ah ba baxna ko may proposer sax babacar gay grand père dama sama jamm yow bi ngay wax lepp xamone sa lamagne bi mo dak taatu yam xamna bi ngay wax lepp doomu indil fi kangam nga ma xawma mais grand xam tam li lañuy wax quoi ma ngi lay dimbali ngay saboter yow yow yow concentré wu ci jang yi motax mais koku moy def buzz may ma sama jàmm waay. fan la def bës. mooy toj tànt yi. sallallahu alayhi wa sallam. lu ko tëddee siiw nag. waxuma la dara sax xoolal surgaam rek. waaw. bu ne dama ni. Hmm. nit ñi commencé bëlongu di njiri daal. alhamdulilah rabil alamin kooku baax na. donc su xam ne de góor gi. Hmm. bu ne dama ni fa fa toj. waxuma la ak Babacar Gueye nag. yow mom boy yow yang ci milieu bi et puis banlieue bi ñepp la xam yow mom lo ma wax dana ma doy yow mom wa deglu rek yow mom mom moom dana kii dalal nga sama xel lo mo wax mom dana ma doy mais assurer nga ne mom tubarkal grand ah. fay ma comme dañ la fay ma dem jële jël ki mu tok tank yépp ah ki moy beus tay jeex na yow xam nga ni ma xam nga ma bax ci yow way yow motax ma di fi ñew mu tok takkale téléphone ba jàmm la ay deppo piano piano bindu càmm laay kar kare sànq ba tey mënuma ko jot you know moo tax ma ma kar kare la peut-être ma jot la da nga may demal ci bindu jam. nee ko mu jël cent mille franc mu joxal ma ko bu yàqu dara laa waxul bintu what waxuma ko dara yow message jam 100.000 mille franc nga nar ko jël jeté ko par la fenêtre pour lan kii ku ko xool xam ne du mbër daan mbër daan mbër te entraîné wul bëgg laa encaissé encaissé promoteur bi ak yeneen parrain yi mu nar tu te rends compte kii comédien bu mag la des la dóorkat bu mag la mu de faire bi prontapo dibce ya porte bu yaara dama ci waslu àq rek waslu àq xam nga moom man may sa caam suma xol moo you know demal ci bintu nga wax mu jox la cent mille francs nga joxal ma ko laa sax comme saa wax ji ma mën ci noppalu te yéen dama yaakaar naa yi da ngeen ma bëgg a yàqal suma bës. ah bon. yeah pronte ko dir ci hey xanaa xamu leen ne làmb ci mën naa ci am bës bu dootul fay yow creuse kii bu daanee ba dem toog plateau bu fa tuddee may sa caam borom VIP sañse mais kenn waxatu ko addunaa may dégg zo grosso mento rompro di corione fai flocloni te loolu nga ci bëgg fai flocloni per favore questo tesso nga gis ma loolu kun toog baax hey yowe eh, jëla sa civière te nga dem sa yoon Yola, laa kan waxal. kan ni? Yau, mai sa cham Thiam nga tek a tegtil man muno maa nax. te nga def nag ñu waxtaan moo moo gën si ngay def te nga def nag ñu tipet. ci pet. waaw. nga ñëw doxaan nag ci Sam Yau, xool nga ma. damaa xew wala xamoo senet, kii xam na bapa, senet ini de. Yau, xool nga ma. wala xamoo seret. yow da nga ma àttal. <laughs> yow nga xam ne francs ngay par sama kaw

Jago, waaye rombal way khalid jigéen ñi ñoom ñoo bëri tiitar ngeen doo potu may nees yëbaate ya sama mi mo tas yaakar ah yaakar ci mom niko indi ma tafsi abdourahman gueye ngir mu jangal ma sama conférence bi mu na man mënuma la koo indi ay babakar gueye la lay indi mu may grand père su ma grand père duma jël gi sama mam djé ah sa tujuh, yooyu xam ne ñooñu tëgg tama la def leer na ma ne ko teug sama mii ko sama àq dalee. man tout cent muy aaral. sama dey xam naa ne xaar gi moo koy xaar sama. Bintu looy kaas. xanaa sama. lu mu defati. tas sama yaakaar new ma la fii moom moo may moo dimbali ci tafsir Abdourahmane. waaw pour ñëw sama conférence bi. Mm, mm. nee na mënatul ñëw. damay indil Babacar Gueye grand-père. li ma dee grand-père. ma soxlawul garanti du ma jër gi sama maam jee ah. waaye nag Bintu xam-xam du ci yére te du ci tuur yow toogal lekk xaar kooku mu lay indi bu la convaincre li nga fàtte ki nga doon xaar. yaay taxaw fi ne xam-xam du ci yére. ah yow ma toog fii dégg saret di la waas. na la nga mën a zakisa xaw ma jët li ba tax nga bàyyi seen gi ci yoon mi indaale woo ko fii da bañ jaay man bi ma xëysee ba gis seen gi nga takk dama tiit. tuuma da nga am yow koy xeexal tey fii ci boutique bi yóbbu nga sama fit de. mais sa jaan nee na la joxul ko saret bu yàqu cent mille. amu fi. alhamdulilah xamoon naa ne sama àq dina ko daal moom saret bu yàqu. yàlla bu fi cent mille am tay ci kër gi fii nii. amiin yaa rabbi. grâce à ma. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله احنا نقول لي سياره يعني احنا اه شريف بي نقول لي سياره باخ دي واخ سيغل دي إيه، جاري دي جاري ما سو إيه، كودي كي ونيو مروم في ما ردي تعلي ما سمع على يومي في كان ديو في اه دي كاجا سخ ديو في بين نمبر لو ام كومبا تدي كو ميسا سير بيا خولا يا واخا لي في اندري سغال سغال ان شاء الله ويما بابا كرجي ني grand-père di jàngkat bu mag ndaanaan kulli fa di leen xaaral Rasulullah lay wax rek foofa toj waaw góor a nii waaye nag turam dëgg-dëgg ñu nan ko Jean Michel moom dox ma la xaaral Rasulullah sax waaye bu nee dama ne naña fa loxo ay jàngkat yu mag lañ xam naa moom jàng yi dina wàcc ba zéro lii maa la ko wax. incha allah. maanaam hmm? di dawlu xasaw laqut ci caaye nar ah moma dal dag ma yeb ma ci Thiam do genn biro bi nga toog mu ñëw dimbali ma ci li ci sama conférence bi hein nga top sa lamba yi rek top sa combat yi be demb jaawite bi sama jëkkër bop ci xana bu goku la ñaana ay pour ñaaro bul ma sonal ak wax ci bari yéen a war a am sa mënoo fi am sa programme am sa conférence pour say parents yu la neex say ndaanaan yu la neex nga tuddal leen ko pare mel na yow amoon ndaanaan wala bàyyi woo fi ndaanaan man may sa caam am super ndaanaan international yëpp bàyyi ma fi xool ni la neex parce que xamoo moom moo tax da ngeen ma xeeb te pourtant àddunaa may wër ya puroon ko dis ko ñaaroo gis nga problème làmb boobu nga xam nan naa ko bàyyi lu musul am Sénégal moo ci naraam ñaari mbër yi war a bëri ñoom ñaari adversaire yi ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk man nga pare na sa bopp épisode bii ngeen doon seetaan

Jena et habillé par Ramatou Baymandel en face immeuble Ferdinand 78 184 48 41.